suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daan naa wax ne su ko xaar yi doon jar danaa ko am. ينزل ليلا التوبة القدمى أو في الرجاء حزار للدوام للغناء وزود في كل باب ما دوام ما دوى كل جواب كل ساعة سي خادم جناب بن نيو سيار لا di la laaj ci wañu yi nga xamne fekk ni la fi ban taxaway ba la fi daayatu bakkar xam bi taxaw waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay bu baax a baax Sa Touré maa ngi lay siyaar Diorin TV wax dëgg yàlla liggéey bi jaar na yoon lool parce que daayira bi añu fi fekk ñëpp waa nañ pas-pas si liggéey si bëggante si lépp loo xam ne nii li li jëmale ab liggéey la ak liggéey Serigne Touba wax dëgg yàlla lépp daal jaar na yoon. waaw kay jërëjëf si Xaadim bu ko defee rek ñu daal di wéyal laaj ba tey muy ban maanaam waañ bi. xéwal yi nga xam ne ñu ngi ko fi def fan la xéwal yi toll. waaw xéwal yi pour l'instant nii moom defar gannaaw bu ñu defaree les li si war a dem si mbane mooy loo mel ni carotte façon yooyu noonu léegi ñu wàll ñu ngi jublu si wàllu euh, ceeb bi pour man ko liggéey togg ko nu ba nuñ ko bëggee jox ko gan yi. dëgg la bu ko defee ku ne xam ne woote bis ñu wuy si la xaw na jafe bu ko boo gisee mbooloo mi lan la suñu xaalam di yëg ak waa daayira Wakana Haqqan bi. waaw yëg-yëg bu may yëg na sori na lool. parce que ma ngi yegg sama bopp si yaruwaay yegg sama bopp si djubanti ndax lepp lu ma mel fi la ko melé yegg sama bopp si Serigne Touba yegg sama bopp si Ba Issa ak serigne jari bi ma jangal yegg sama bopp nag ñii laa bokkal yaruwaay mi ñuma ma gis lool gis leen mu am nek taw feex si man lool yëgaan ne ñii laa bokkal hakan, Wakana Haqqan boole liggéey ñu am liggéey pour Serigne Touba. jéem euh, rek xam nañ ne ci wuñu waaye nañ jéem rek liggéey fas yéene liggéey euh, ngir lu jëmale bis bi kanam te xam ne bu bis bi demee kanam rek ñun na demal ñun ñi nga xamante ne dëkk bi lañ bokk nekk sët ci dëkk bi ba borom bis bi nekkoon ku jàmbaar koo xamante ni lu ne bay na ci yoonu murit ba tax tey jii mu am wakkaan xaqan alayna nasrul muminin Eh, di ko ñaanal fa mu tëdd ne yàlla na ko fa yàlla jégal jégalaale mboolem ko fa nekk ci barke sëñ Touba. bu ko defee rek ñu lay daal laaj ba tey nga xam ne yow sët nga ci dëkk bi ci dëkk bi nga dëkk boo gisee mbooloo mi nii maam lan nga yëg. <coughs> sant la ak kontaan bu baax a baax kontaan nañ bu baax mboolem koo xam ne ci dëkk bi nga bokk rek bu bis wakaan xaqan ñëwee rek wax dëgg yàlla mbégte kontaan bu baax ngay am eh, ndax bis bu mel nii ñëpp wuyu si la. fu nekk waaye fu nekk nit dafa bayekoo di ñëw di la di di wuyu si si bis bi wax dëgg yàlla bis bu neex la képp ku fi dëkk rek wala nga bokk fi rek wala nga jàngee si fi wala nga kii fi rek wax dëgg yàlla kontaan nga ci bis bi. ñu ngi sant waa daayira Wakana Haqqan bi yëpp nag ñëpp ay ndaw lañ waa macha allah ndaw yu nangoo takkaayu lañ ndaw yu am fulla ndaw yu am jom ndaw ñu bëgg kër baabu ndaw yoo xamante ni macha allah. bu defee ngay jëriñ ci liggéey ba tey yàlla def nga bokk ci ñuy diriger waañ bi muy waañ bu mag bi bu defee ndax mën nañ xam xéwali fan la toll ak ñaata mën a ngeen teg waaw xéwal yi am na yokkute wax dëgg yàlla ndax teel nañuy commencé depuis huit heures ba tey ñëw ngi fi euh, daaw avancement am na ci ndax daaw dix-huit mbana lañ tegoon ren ñu ngi def vingt mbana euh, it yàlla def ci kéemaan ba nga xam ne ren daaw at mu ne ñaari nag lañ laa rey depuis deux cinq ba léegi ren jii rey nañ fi ñetti gàtt ñetti nag ak benn gëlëm def nañ ko fi moo te te gëlëm ku ne xam na ne di gëlëm moom fa la teraanga am mhm. te am na fi ren waaw xéwal yi fu mu toll nii ñu vingt wax dëgg yàlla yëpp tegee na ci yëpp jaar na yoon yëpp ñu ngi toll ci jamono ji ñu ngi koy suufal bu baax. ok salaamaaleykum wa rahmatulah ginnaaw bi ñu leen nuyuwaatee siyaar leen ñu ngi fii ci kër maam Babou Cissé ku ne gën a xam ku ne xam ne taxawaayam ci bis bi ku ne itam gis na itam itam ci bis boo ko defee ñu fekk fii sunu xarit sunu jëriñ ci daayira bi. mu doon dom ci kër yi muy fallu Cissé ñu fas yéene waxtaan ak moom ci wañu nga xam fekk nañ ko fi bu dé fa la liggéey bi toll ak ban taxaway la ci daayir wo kana xam taxaw fi ci kër mam babu waaw assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh siyaar naa leen ñëpp na ngeen def kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant waaw liggéey bi de ñu ngi gor góorgóorlu de waaw bis bi mom ku ne xam na ne liggéey rek la andal waaw ñu ngi ci kenn ci lay kattan di gor góorgóorlu am dëkk bi li ñuy wax xanaa jéem a liggéey rek ndax nga xamante ni liggéey bi moom kenn ku ci nekk sa bopp ngay liggéeyal ndax lu waay jëf rek boppam noonu la ko sëñ bi noonu la ko sunu sëriñ santaane woon waaw nag kon moo tax kenn ku ci nekk da ngay jéem a góorgóorlu si fi nga faree rek nga xamante ni moom kenn ku nekk daal yaay soññ sa bopp waaw yaay soññ sa bopp daal waaw góorgóorlu rek góorgóorlu. waaw kay bu ko defee itam mu mel ni waañ bi yaay responsable bu ko fan la liggéey bi toll ak xéwal fan la toll. waaw xéwal moom waaw li ñuy wax rek. kenn ku si nekk dangay ngay profité pour euh, gan yi ngir bëgg a teral gan rek. Mm-hmm. nga xam ne dangay fexe li nga li nga li nga li nga li ngay togg mu gaaw a sotti ndax euh, li ñuy wax nit moom mënut lekk lekkaat daanaka. Mm-hmm. dangay profité nag fexe li ngay li ngay berndeel fexe mu teel a pare. wa rahmatulah ginnaaw bi ñu leen nuyuwaatee siyaar leen amaan mbégte mu yaa dellusiwaat fi nga xamante ni mooy kër Baye Abdou Karim Cissé di xalifa général kullu euh, famille Cissé bi nga xam ne ñoo féetoo fii ci kër Baba Coumba di fa di di xalifa maam Baba Coumba. boo defee ñu am mbégte bu baax taxaw ak sunu jëwriñ ci daayira Wakana xam bi suñu baay di doom ci sëñ Abdou Karim Cissé xalifa général euh, kër Baba Kumba bi boo defee muy sëñ Cheikhouna Cissé Cheikhouna ginnaaw bi ñu la nuyoo siyaar la euh, fan la liggéey bi toll ci mbokk yi nga xam ne ànd ngeen ko yéen nekk fii ci kër maam Abdou Karim waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla bu baax jubli si yonent bi euh, di sant Serigne Sam matériel borom bis bi di ci kontaan lool di ci am mbégte waaw liggéey bi moom rafet na lool Euh, sama gars yi depuis ginnaaw suba ba tey ñu ngi ànd ak ñoom ci bis bi di ko rafetlu lool jàpp nañ ci liggéey bi kontaan nañ bu baax ni ko sart daayira bi tëralee encore ñun ñëpp ñu ngi ci ànd ak ñoom bu baax waaw gisuñu si benn fuut ah démb sax ne la ñu ngi ci saa saafam kaf mi liggéey seeg kafe jox jaam ñu lekk tartu nañ leen bu baax a baax waaw liggéey dëkk bi tamit ñu ngi ciy siyaar ñëpp waaw waa daayira bi moom ñu ngi gis seen taxawaay bu baax a baax a baax waaw tey moom buñ xëyee suñu xol sedd na gan ñëw na bégal nañ leen hmm. waaw léegi ñuy ñaan yàlla rek di ko continuer hmm. di kontaante lool bis bi si kuñ ko tuddee muy Serigne Cheikh hmm. waaw di suñu wasila di suñu baay di suñu maam waaw bokk si ñu fi samp alxuraan si dëkk bi kon it loolu lu rëy la am mbégte waaw ginnaaw bi ñu ko tuddee ñu am ci kontaante lool waaw bi ko biñ ko yëgee sax ñun dañuy am kontante parce Euh, euh, suñu scène bi nii bi mu fi ñun si lañ ko soog a yëg ñu ne kon bis bi ñu ngi ko bis ñu ngi ko jagleel sëriñ sëriñ sëriñ Seex kon loolu mbégti mu yàlla te it day wane ne Wakana gi benn la mag ñeeg rakk yi ñëpp benn la daayira bi benn la seeni ay doom yi tamit ñoom kontaan nañ ci loolu bu baax a baax moo waral tey photo bii nii sax ñu daal di ko defar nga xam ne tey boo demee buntu kër Serigne sax ñu ngi ko fa defar kon lépp loo gis lu ne rek xamal ne Wakana gi day avancé comme Serigne Insa mu ngi ko tàmbali woon si jën di ko dem di ginaar di ko dem ba xar di ko dem ba bëy ren it yàlla daf jëlam ñëw fi kon it loolu day gën a am kontaante waa daayira bi ne kenn demul ñu des waaw kenn demul ñu des du jëwrin ba ci ku nekkul jëwrin ñëpp kenn demul ñu des gis nañ seen taxawaay bu baax a baax a baax. ok bu ko defee rek ñu taxaw ak sunu jëwriñ Serigne Mbaye Cissé mi nga xam ne moo yor wàllum waañu café gi bu ko defee Serigne Mbaye ginnaaw bi ñu leen nuyu siyaar leen mm-hmm. dañ lay laaj rek waañu nga xam ne mooy waañu café da nga féetewoo fi nekk fi jëwriñ fan la liggéey bi toll ci café gi. waaw ba ñu sant yàlla delloo sant baax a baax a baax ah, di wax sàng bi laaj ñu laaj boo xam ne mën nañ ci am ak leeral lu am solo ndax fi ñu toll ci café gi saa su ne heure bu jotaan rek dañuy bàyyi suñu yitte ñëw def li nga xam ne mooy ndigali sëñ bi nga xam ne fii lañ ko mos di defee kafe gi nag mu ngi jaaree si sëñ Abdou Khadir nga xam ne doomu Ibnu Sëñ Ibrahima Cissé la nga xam ne bu ñëwaan rek dara wax ne kafe gi mu ngeen ci man pour defar ko mu mën a sell mën a ànd ak làpp mën a ànd ak tawfeex ba nit ñi mën koo jëriñoo ko defee noonu ndax bu ñu koy saaf dañuy bañ ba jar bi du am doole bu ëpp àpp te dana balaa ànd ak kafe gi ba nga xam ne képp ku koy naan da nga ci amal la suñu euh, sëñ bi mag bi yéene woon ak jaamam parce que su ma amoon na leen noonu lañ ko taw fexelee ci fii nii ci kër Baba Coumba ci wakkaan xaal la moom ndax chaque année ba ñu ko commencé ba léegi noonu la ñu ko doxalee an mu nekk ñoom ñoo ma koy àndante ak mbokk taal bi nga xam ne ñu ngi ciy nekk ci wàllu root ci wàllu taxal ci wàllu dogg ci wàllu segg lépp bu ñu koy def dañuy fas ki yéene jàmm bu ci xiwlu wala ku ci neem a xiwlu te yéene bi agsiwut ci yow it maanaam jotewut ci yow ñu ngi yéene lépp nekk tawféex te ni ko borom bi ñaanee woon rek nga xam ne taw kafe tawféex la tawféex jooju lañ ci doon sàkk waaw noonu daal lañ ci anam bi nga xam ne moo bokk nañ ko si bi nga xam ne si lañ nekk nii suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daan naa wax ne su ko xaaritoon jar doonaa ko am